moom day xolam dafa sedd xolam dafa fees ba mënula wax ndax bis bi moo tol noonu ci moom soxna maam Faati Mbàkke mum sëriñ Baara Mbàkke mum sëriñ Fàllu Mbàkke mi ngi ci jataay bi toog ñe ak soxna maam Faati mum sëriñ fallu Mbàkke ak soxna maam faati Mbacke moom sëriñ Moodu faati xari Mbacke nee na ñëpp ñu ngi toog ak xaritam yi ak àndandoom yi ak dëkkandoom yi nee na fenn fu ne nit jóge na fa ñëw fii ngir bisam bi kon xolam seet na guy xelam dal na nee na mi ngi sant gone yi nga xayante ni ñoom la bokkal koñ bi ñetti fan yàlla ñu ngi ci kër gi ànd ak ñoom liggéey bi ni mu ware ñu koy défé dara manki wul sëriñ habo mbacké du yoli néna mi ngi koy sante bu baax té diko ko kon bis bi xadi lepp yow ñu ci bari dañ lay fay rek ndax ya leen ko lebalon kula xam xam ni nga ni nga mel ci doomu adama yi xam ni sa bis jombu la kon yow ulia ya ko def ñu ngi sant ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw soxna Faat Jóob jéemul ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñëw na ak délégation ñoo ngi koy sant te di ko gërëm ndax nee na moom soxna maam xari moo leen boole moom sëriñ Mourtada Mbàkke mu jël ñu jiital ñu ci kanamam ñuy liggéey ci développement mu jiite leen te nangu ko lool nu ngi leen a jàppale it te ci développement bi kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm soxna maam xarit teew na fi délégation bi ñëpp teew nañ fi nee na mi ngi sant Serigne Omar Sarr ak El Hadj Assis ak mbokki boppam yëpp ak Serigne Ndiaga Ndiaye mii jóge ba Boustaan. nee mi ngi sat ay bokam yépp di sant bokki dekkando yépp nak di sant serigne Mambay Lo nee mom moom mi nga xamante ci koñ bi la bokk ak mom dekk muy sen ndijay di kilifam, di cheikh ci yoon wi wacce bopam lol ak ay soxnam ak mbokki dekkando yépp serigne Majdi ndjay tew na fi cheikh rijaal teew na fi sëriñ Sam moom Seex Rijaal teew na fi nee na mi ngi sant mbokki dëkk yëpp mi ngi am cant goo xayta am na at tàmbali waaye amul fu muy yem nee na sant na ñëpp di sant sëriñ Baara Buso di sant bi. nee na mi ngi sant jeunesse koñ bi nga xamante ni mooy xale yi ànd ak ñoom guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñëpp. ñu tuddee seen bopp ahlul café ñoom ci fajar ba nekk ba nëgë ni ñoo nekk ci liggéey bi ñoo togg kafe yi ñoo defar bernde yi lépp ñoo ko def bàyyiwuñu dara lépp ñoo ko def kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di sant maam Faati Mbàkke moom Alaaji Baara di xam ni moom faat féete Khady Diop la di sa di sant Ndiayeen famille yi nga xamanteni ni joge ba Dakar neena bu ne Ndiayeen family rek tuduna na bepp mi mun may mënta lim mi ngi sant ñi nga xamanteni moy jigeenam bi xamanteni mo ne ci kër gi di borom kërëm di soxna soxna Bintu neena yaatal nako lol tal teral ko di ay rakam ji mu nekkal di ci nee neena xolam seet na xelam dal na nee na mi ngi ñaan ñëpp yàlla na ñu gudd fan yàlla na nu wér yàlla na nu barile yàlla na ñu barkelle ci dara daraje sëriñ Touba barkeb Cheikh Rafal nee na mi ngi ñaan Serigne Sidi Ahmed mii xayante ni moo ñëw fii ba ay ati ati ati at mu di ko teew ci bis bii te képp koo xayante ni nekk nga fi rek nga di ko teewe teewe teewe déwén déwén déwén gudd fan. wér te wér la ci barke Serigne Touba. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah sëriñ bi mu ngi yëkkate kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu ngërëm jëme ko ci bokk yi te dis na tudd bokk yi kenn leen ci man ndax ni ko sëriñ bi bëggee ak nim nu ko waxe xëy na da ciy def ndimbal rekk waaye yéene moom rëy na ci lool kon sëriñ bi mi ngi yëkkati kàddum nuyoo di ko jëme ci bokk yii fi ne li ci jiital njabootuk boppam gi mu bokkal baas bi ci wàlluk bi ak ci wàlluk mbàkke ak ci wàlluk ka ñëpp di ay bokk mu cay jiital doomi boppam jim fi fekk di soxna maam Fatim Mbàkke moom sëriñ Alaaji Baara ak sëriñ Abdoulahi Mbacke moom sëriñ Modou Fati Xari ak sëriñ Baara Bousso ak sëriñ Abdoulahat Ka ak mbokk yëpp ak sëriñ Assis Ka ak sëriñ bi loo doon suga ak si léegi ak mboolem mbokk yi fi nekk yëpp tey bokki sëriñ bi sëriñ bi ne mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di nuyu it bokk yi nga xam ne dañuy bokki Soxna Xadi te jóge ci jóge ci ay gox yu xaw a sori ngir yàlla ak jëmmi seexul xaddiim ngir yàlla ak jëmmi sëriñ sony bu rekk ñëw fii sëriñ bi ne mi ngi leen di siyaare bu baax ci weer wu tedd wii ndax weer wi day ñu dugg ci fukki fan yu mujj yi te fukki fan yu mujj yi kenn ku ne xam na ne am lu ci suñu borom wax kon sëriñ bi na li ci yàlla wax mi ngi ñaan ci barke wajurum wa yal nako sangi borom nongul suni kor barkeb cheikhul khadim ah di wax ne ab jotaayam fi ñi xam ak ñi xamut dunne gulet ndax le rek moko ko tax ndax dafa fekk wajurum bu baax wa ak mamam yu baax ya don dox lu melni di di ak bok te diko ko jokkule ci góor ak ci jigen tañ gën ko taamu ci wépp waxtu waye rawate nak weer wi ñu ne di weeru koor nga xam ben bo ci def lu baax suñu borom da la ko fayal ay junni ku ci def safan ba suñu borom jéggal la ko kon nee na ab teewaayam xol bu sedd rek la fi ñëwé day séral nak bokk yi fi ne muy bokki bopam yi ak bokki soxna Xadi ak soxna manfaati fati ji jum ji nga xam mo moo mag ci jotaay bi mud leen séral na digënté mak soxna Xadi digënté bu yàgg la waaye diggante pas pas Pastef rek la ak taalube ak kóllëre moo ko lal ndax day wax ne yàlla suñu borom jox na ko aw góor jox na ko aw jigéen suñu borom itam dimbale na ko ba xam na xàmmee na waaye ku jóg jëm ci moom tey dox doxinu Pastef nee na kooku la sawar a àndal te jéego yooyu ak yéen a jooju la gis ci Soxna Xadi mi moo tax mu jàppal ko boppam bëgg yéen bokk yi ngeen xamé ko non té jappalel ko fayit ndax jigen la joj dal day mel ah mang ca la ko war waye lo bu koy def nak, da ci gëreum borom kërëm bi nga xamné ne moo moom fii tayit limi def sona Xadi limi def lum ko def def ci ndigalul serigne bi serigne bi neena ndigalul borom kërëm moy ka ca gëna yallu koy def dafa melni ni ci ndigalul borom kërëm ndax serigne bi neena lum ko bëgg bëgg dimbilé ak lum ko jàpp-jàpp su ko defut ci ndigalu borom këram dana ci xaw a am tuuti ak jaaxle waaye nag ndokk ba ko sama borom dimbalee ba yàlla dimbale dimbale ko ba mu am ko ci ndigalul borom këram di ko def ci ndigalul borom këram kon sëriñ bi ne xolam sedd na guy ci soxna Xadi mi ngi seereel bokk tam ne a ah, fii bu bu fi ñëwee yàlla ak soxna Xadi waaye yàlla ak dëkkandoo yi yàlla ak jullit yi yàlla ak ñëpp moo tax mu ñëw fi di fi jokk bokk tem na ko nañ ko waxee ne ko waajuram daa jokke ndax kenn ku ne xam na diggante sëriñ bu ak jullit yi kenn ku ne xam na diggante sëriñ Souhaïbou ak taalibe yi kenn ku ne xam na diggante sëriñ Souhaïbou ak njabootuk Seexul Xadim gi ku nekk mën nga cee seere benn seere boo xam ne bu la nee kii kat doomam a te day dox tànki bokk jokkuk bokk kon du la jaaxal ci wetug waajurum góor suñ la waxee wetug waajurum bu jigéen di sëriñ Moustapha ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Ceytu ah moom maam Cheikh kon day mel ni jokkuk bokk moom sëriñ bi da koo doon ci ñaari wet yëpp kon nag képp koo xam ne suñu borom xiir na ko ci yàlla dogal nga bëgg ko ba sab sab xol jëme ko ci sëriñ bi sëriñ bi fab xoolam ak yéenam jëme ko ci yow kon loola sant yàlla rek moo ca war ah day wax nag ne wala dañuy léeb na góor baax na jigéen baax na waaye jigéen jëca gën mooy jey roy ca maam yu baax ya soxna jaariyatullahi maam ju baax ja ndax momit ni rek la doon def di jokk bok ci wépp wer di def lu baax ci bepp waxtu kon sona Xadi sulu sama borom dimbele nga andak say bok andak wa koñ bi andak say dekkando di jokk bok ci serigne bi serigne bi du man lu dut ko ak ñaanal la kon neena mi ngi ñaan ci barke cheikhul khadim li nga bëgg ya ko xam bang koy yalla na dem bar ba ba àgg foo xam ne di fogu mu Lol nak buñ ko waxee nak sa xel dal ndax mbirum seigne touba mom amul tanki tanki ginaaw tank kanam la am ndax bépp lepp seigne touba rek boko ko da nga xam ne njëlbeen nga day xawon na nuru lu sew ci sayr waye mujj go mom alhamdullilah rabbil alamin rek mo ci top kon sa mbir mi na nga rafet njort ci bu baax ci wote giñ ko wote te wo ci satub cheikhul khadim wo ci doomi serigne wo ci bokk yi ñu ñew ndogo fi ñaan fi ñaanal sa wajur wa ak jullit ya dem yëpp nañ gëm ne googu ñaan moom suñu borom da ko neenal yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb sëriñ sooy bu barkeb jëmm ju tedd ji toog ah la cee dolli ko nag ah wala fi dañuy wax ne nit mënta wax boppam nit mënta wax boppam ah nit mënta wax boppam nag daa tekki lu bari mooy loola dañ koy sof ci cant gi nga xam ne sëriñ bi neewoon na yow sëriñ aboo nag mu ko yëkkatil mu jëm ci soxna yi ak bokk yi ak dëkkandoo yi ah nit mu tax boppam nag loolu boo ko déggee mooy sëriñ bii toog moom day suñu borom dafa dogal mu noon koo xam ne ci ay atam mën nañ koy wax tuut tànk ci saayir waaye mën nañ koy wax mag ci baatin ndax ku xam fi mu bokk xam li mu bëgg xam fi mu jëm daraam du la umb ndax nun suñu borom dimbale nañu ci baaxug wajuram bu baax wa ba ñuy dugg ci loxoy waajuram juróom benn at la ñu am te defe naa ñu suñ juróom fukki at lu tegal kon am na luñ xam ci moom luñ mën a seere kon doon man lu dut li ma ko wax léegi ci biir rek na ko sëriñ bi suñu xel dal na bu baax sunu xol sedd na bu baax ndax sëriñ sooy bu lan yàlla dogal muy sunu la doomam ju ñu gis ngay dox doxin wa mel ni wa sëriñ sooy bu doon doxe dañ lay ndamoo nga siggil ñu ñu am mbégte bu baax ci yow ndax suñu borom dimbale na sa waajur moo ñu jàngal moo ñu yaram dañ néegu dox nañ aslëf kon sëriñ bi ni mu mel nun liñ war ci moom te di ko sàkku ci yéen moo ñu ñaan la ko mu doon mag ndax léegi laa koy wax ci biir ne ko keroog gàmmu de bi ma la sëriñ Cheikh say wooloo ba nga ñëwee fi moom ba mu la joxee ndigal ba nga jógee sëriñ bi am na kàddu yu ko seereel yoo xam ne xëy na lenn la duñ wax rajo waaye lenn la manis na wax ngir dimbele ñi mu fekk si ak ñi ko xam mooy sëriñ bi dafa wax ne Sidi day kersa akuk taalib la dox la sama digg ak moom ba ba xarkana bi daanaka xawumaa xam nu mel loolu nag ku ko sa kilifa seere goo xam mat na la kilifa da ngay ndax ni ma wax na ma sëriñ seex defuma ko mag waajur ko def ndax ba fi sëriñ son yi bi ci liñ war a defal doom yi nit ku baax lépp sëriñ Seex taxawuma ba ma def ko kon sëriñ bi sama waajur a nee na loola moo tax mu doxale kersa digganteem akuk taalibe doxale ko digganteem ak sëriñ bi ba daanaka du siggi xool ko loolu nag moom waruñoo jaaxal ndax dafa gor rek di ko wax waaye liñ waxan léegi rek baraana ci moom ci ñoom ñu sëriñ bi yar ñu bokk ak ñoom sëriñ sooy bu waaye genn kàddu rek la ñuy seere ci moom kon sëriñ Sidi no nga lay ñaanal ci barke wëru tedd wi di la ñaanal ci barke sa wajur wa nga xamne ne amuñu lu dul moom te mooy suñu wasal ci cheikhul qadim yàlla na la yalla def mag ci barke cheikh Ahmadou Bamba Yalna na la yàlla jàppale nga ag ta baña am ndok barke seigne touba yalla man nako yalla ko def seigne bi dal xolam sedd na guuy nun ñi and ak momit ta doon ab te ay talubem ñen ñi doon ay bokkam suñu xol sedd na ci mom lool sunu xadi yawit it xol na ci yow lol ndax li lu bax la ndax dajala ay bokk rek dajala ay julit ci góor ak ci jigéen ci lu neex yàlla ci weeru koor loolu rek boo ko defaan te sëriñ bu tedd bi téewu fa itam jàppal leen dimbalu yàlla mën na caa soqi ko rawat na nag ba nga tànnee sëriñ bii yàlla xiir la ci moom ngay wéy ci ndigalam ginnaaw boo ci amee sa ndigalu borom kër ba noppi di sàkku bëggam di sàkku bànneexam di sàkku ngërëmam yàlla na la ko ci yàlla defal ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba ak mboolem koo ko àndal sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp ko xamne da nga joge won fu sori sow ak ndar ak ci dekk bi ak ci koñ bi serign bi ne gis na ñep xàmme na ñep mi ngi ñaanal ñep ci barke wajuru mu baax wa suñu borom dimbali ñu tay ak ëlëk jangaro ju finit indi bala waxtu bala nga genn kër yalla ko sama borom safara yalla man nako ndax wër wëru ñaan la fan yi fanu ñaan la yitte ju fi way indi yalla ko sama borom safara ci barkeb sëñ tuwa sëñ bi gëreem na goor ñi gëreem na jigéen ñi.